an rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala wa sahbihi wa xadimi ummati ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi bokki talibe yi buñu bu leen nuyoo ndokkeel leen siyaaro leen ci weer wu wi di weeru koor di leen balu xaq te di leen bal aq di ñaan suñu borom nangul na suñuy koor te nangul na suñuy jaamu yàlla ñu di leen fàttali leen digal bàyyikoo na ci ak Cheikh Mouhamadul Mountakha jëm ci julli korite gi fii ci jumaay Tuubaa ak barab yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Tuubaa yëpp te ñu di fa julli korite sëriñ bi wax ne danañu julli korité gi incha allahu bu weer wi feeñee ci ba fukki waxtu ci suba mu am nag lu ca spécial ren loola mooy xam ngeen ne fi jamono toll tax na lenn demeetul na mu daan demee dañu daan def julli ayit kori ak tabaski dañ ko daan jullee ci penk jumaa ji ci jàkka ji nga xam ne fi lañ koy jullee waaye ren nag ak tolluwaayu jamono ak xat-xat yii ci am tax na sëriñ bi andi ko ci biir jumaa ji ñu war a jullee korite gi kon incha allahu ci biir jumaay Tuubaa ji fi ñuy jullee julli juróom yi foofu lañ koy jullee bu soobee yàlla bu fukki waxtu jotee ci bisu korite gi ñuy ñaan nag képp kuy ñëw ndigal yi nga xam ne sëriñ bi joxe woon na ko mu sàmmonteeg moom ba ca njëkk mooy mu maskawu wala mu yor kaala na yor masque wala mu yor kaala bu agsee ba ci bunt bi mu raxasu ba set walla mu laal alkosel dugg ci biir jumaa ji soreele sàppe yi taxawaay ci sàppe yi ni ñu koy defee ci ajjuma yi bu ñu jullee ba noppi itam kenn ku nekk fa nga toog nga toog fa ba déglu xutba bi ba sëriñ bi waxtaan ak ñoom ba noppi ñu jóg ndànk génn benn benn delluwaat ca kër ya te koo agsi fekk mu fees itam nga jàppalanteeg ñi fi nekk xam ne barab bi fees na nga dem fa mu gën a yaatoo nga jullee fa kon yooyu mooy ndigal yi nga xam ne moom la sëriñ bi wax ne nañu sàmmoonteeg moom sëriñ bi it wax ne mi ngi ñaan gone yi ak soxna yi ginnaaw jamono daa toll fii ñu toll ren ñu muñandiku toog ci kër yi ba beneen yoon bu weneen yoon jotee ñu ñëw si ñu door a mën a ñëwaat ci jullikaay yi nañu ko daan defee waaye ren moom sëriñ bi joxe na ndigal jigéen ñi ak gone yi ñu jullee ci seeni kër ñu toog ci seen i kër euh, bàyyi mukallaf yi rek yi nga xam ne mën nañoo ñëw mooy loolu itam xataayu barab bi moo ko waral ngir xam ngeen ne barab su fekkee daf daan def junni te léegi ñu def dafa def lu toll ci ñetti téeméer ci misaal maanaam fu ñett daan nekk kenn na fay nekk bu boobaa barab bi dootu mën a tey jël la mu daan jël su boobaa nag dañuy seet ñi nga xam ne seenug toog moo gën a woyof ñu sàkku ci ñoom ñu toog ñooñu nag mooy jigéen ñi ak gone yi kon sëriñ mi ngi sàkku ci jigéen ñi ak gone yi ñoom ñu toog ba beneen yoon jamono gën a yaatu bu boobaa ñu dellu def na nga xam ne noonu lañ daan def kon kuy ñëw daal na nga yor masque walla nga yor kaala soo agsee na nga raxasoo soo accès itam na nga boo ko mënee itam na nga ëndaale sajaada boo xam ne danga koy lal fi ngay toog boo accès itam nga dem ba ca sàppe sa sàppe yi itam jataay yi na sore bu ñu noppee itam kenn ku nekk fa nga toog na nga fa toog ba sëriñ bi xutba ba ñu xutba ba sëriñ bi waxtaan ba noppi ñu door a jóg te bu ñuy jóg itam ñu génn par benn te ko accès itam ñu ne la barab fees na nga jàppalante ak ñu fi nekk di xeet beneen barab bu yaatu nga jullee fa loolu mooy ndigal yi nga xam ni moom la sëriñ bi joxe ci jullukaay yi ya ca des nag nañu ko baax woon a defee rek noonu lañ koy defee mooy mbedd mu nekk dana am ñu fay taxaw di orienter nit ñi ngir ñu mën a ñëw julli ci jumaa ji bunti jumaa ji bu nekk dana am ñu fay taxaw fu barab des buñ mën a toog danañ ko won ñi nga xam ne ñoom la ñooy julli si waaye kuñ la waxee ne fees na it na nga xam ne ñoom saytu nañ ko ba xam ne fees na moo tax ñu wax la ko na nga xool feneen fu yaatu nga jullee ji fa loolu mooy ndigal yi nga xam ne moom la sëriñ bi joxe woon ñu waroon leen ko jotli ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bala wax ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.